dama ñëwoon waxtaan ak euh, suñu mbokk journaliste yi ginnaaw bi ma leen sargalee ci feetu liggéeykat yi muy feetu premier mai ma sargal leen yéen journaliste yi tey seen feet la waaye yéen a ngi liggéey waaye ma boole ci képp koo xam ne kii yaa ngi liggéey ci Sénégal boo newee ci usine wala ci bureau wala ca marché ba wala ca tool ya euh, maa ngi lay sargal ci bés bi waaye nag mënuma fàtte ginnaaw bi ma leen euh, ñaanalee déwén yàlla fekk leen ci ay place ma fàtte ndaw ñi ndaw ñu bari ñi nga xam ne ci réew mi yor seen dooleeg seen xam-xam te ba tey ñu ngay wut place bu ñu amagut tey nag conférence de presse bi euh, dama leen invité fii ci Grand Yoff ndax li may wax ne nañuy liggéey ci quartier yi ak ci village yi ndax tey ma invité leen fii euh, ci base bi sunu siège euh, mu ngi fii sorewut ma bëggoon nag tey waxtaan ak yéen ci actualité bi ndax actualité bi defe naa ne Euh, li ñuy gën a waxtaanee ci presse bi wala ci grand place yi wala ci kër yi mooy woote bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko pour waxtaan waaye nag euh, li ñu ci jaaxal mooy dafa waxtaan waaye nag continuer di singale opposants yi xale yi nga xam ne dañu doon manifester mbot nañu ñetti téeméer yoo xam ne ëpp nañu ko bi ma ko laajtee bi may ñëw ñu ngi leen téye ci kaso yi te duñu ay sàmba booy tool dóoruñu këfuñu yëfu jàmbur yéen journaliste yi gis ngeen coono bi nga xam ne ci lañ leen dugal kon li nga xam ne mooy woote président Macky Sall bu tuddee ko jaloo man li ma jàpp mooy manœuvre politique la mbiru politique la pour diviser opposition maanaam féewale leen waaye nag ci lii mu ne tàmbale na ko bu yàgg ak parti socialiste sénégalais parti démocratique sénégalais PDS ne woon naa leen ne ña ngay waxtaan bu yàgg donte PDS ci opposition la ko xamee ba amoon na fi sax intercoalition tey nag la waxtaan woowu ak diil woowu feeñ booy seet sax du président rek mooy organiser dialogue bi ñoom ñoo bokk di ko organiser waaye nag la ca gën a doy waar mooy ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur te nga xam ne moom moo aajo waxtaan bu parti yi toogee yu ni mel muy Antoine jox moom moo doon procureur adjoint bi nga xam ne moo ne woon ca procès Karim Wade bañ ko condamné weer yii yëpp ñu génn nag PDS fu ñu yëkkatee kàddu rek tudd nañu parti boo xam ne ñu ngi ko créé ci 1974 daanaka dana am juróom fukki at saa yu leen laajee rek yéen lu tax du ngeen bokk ci opposition bi dajaloo di xeex troisième mandat di xeex pour que ñëpp bokk ci élection yi dañ la naan man mi Aminata Touré. maa fa bokk moo tax duñu fa bokk buñ la ne loolu lu ñu ne ndax moo condamné lu woon Karim Wade te ñëpp xam nañ ne ay tribunaux ñoo condamné Karim Wade bañ koy condamné sax fekk na man ma jógee ministère de la justice waaye nag xëy na dina baax ñu fàttali li ñuy tuddee toujours la traque des biens mal acquis euh, nu mu commencé nu mu dooree mooy sénégalais yi bëggoon nañu xaalis bi nga xam ne ñu ngi ko doon dégg corruption bi lu ne déggoon nañ ko fi ci scandale bokkoon nañ ci li ñu bëgg président bu bees bi ñuy fal mu lijjanti loolu mooy président Macky Sall kon liñ naan demande social la woon ca booba jamono fukki at ak benn ci ginnaaw nii mu nekkee demande social fii ñu toog nii defe naa ne sénégalais yi bëgg nañu aussi ñu leeral mille milliards yi nga xam ne moom lañu defoon ci Covid Cour des comptes wane ne vraiment la ñu ca def dëppoowul ak yoon waaye loolu moom du gaaw donte procureur war naa accélérer la cadence waaye loolu du gaaw ginnaaw goro bi moom aussi dafa mel ni ci mbir mi it am na luñ ko ci waxal kon bi président Macky Sall faloo ca 2012 man mu nommé ma ministre de la justice. lam ma sant mooy lii nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy xaar ci man mooy xaalis bu bari bi nga xam ne dugal nañu ko ah nañu fexe ba liggéey ji ca nañ doon topp nag ku mel ni Karim Wade musuma ko xam musuma ko nuyu xaw ma ko donc awma benn xaar ma yàlla ak xaar ma yàlla ak moom lu dul ma doon def suma liggéey te poste bu ñu ma joxoon it muy sport artisanat bu mu ci munti wala doon voilà na ma ca saware woon ak na ma ca defe woon la ma ca waroon a def noonu laa koy defee kon ma jox instruction maanaam procureur ma leen wax lanu war a def lu dul topp leen seen liggéey ak li yoon wax defe naa ne procureur bu CREI monsieur Aliou Ndao wax na ko bu yàggul ma sax sant juge ci beneen affaire ba ma fay jógee ba ñu may ba ma présider seen assemblée générale boobu ñu te ñu mayoon ma ci cadeau ah dama leen ne bu fekkee ne am na ci koo xam ne ci yéen ëpp nañ nag cinq cent et quelques juróomi téeméer rek nangami magistrat fekkee ne rek am na ku ma ci mës a woo ne la lijjantil ma bii dossier wala bii dossier yëkkatil sa loxo loolu nag dafa musutam ba nu defee procès ba Karim Wade ñu condamné ko la ca des après président Macky Sall euh, bàyyi ko avant peine bi di jeex donte yoreel nañu 138 milliards 138 milliards yooyu ci suñu jonn yàlla tey daf ñu ko yoreel ñun sénégalais yi contribuable ñu naan contribuable sénégalais ne woon naa ne am na cent milliards yoo xam ne yii ci affaire reddition des comptes jotoon nañ cee teg loxo euh, communiqué communiqué gouvernement au président Macky Sall ca jamono jooju confirmé na loolu président Macky Sall ci boppam jël na kàddu ne ah loolu kay lu am la euh, ku dugg ci Google rek di nga mën a mës a mën a gis la nga xam ne jot na koo wax. waaye tey la ma doon wax ba ma PDS di topp rek singali ma ne ma voilà Aminata Touré moo tax ñu du ñu ànd ak opposition moo tax du ñu bokk euh, la ma doon wax tontu ba mooy dana feeñi ndax lii ab diil la diil bi nag tey la fay ñoom ak président Macky ñoo bokk di organiser booy seet lii ñu tuddee dialogue waaye la tey am nag mën naa leen ko wax te mën naa koo bari it PDS dana ne waaw président Macky Sall bu ko conseil constitutionnel mayee war naa mën a nekk candidat loolu moom danañ ko dégg buñ cee yàggulee it dañ naan nañu bàyyi rek conseil constitutionnel moom mu seet ñi war a doon waaye nag laataa loolu sax booy seet ñoom bari na ci fu ñu jàppale président Macky Sall man ba ma nekkee député non inscrit à l' assemblée nationale ci la Benno Bokk Yaakaar perte majorité booba ca la amatul majorité waaye fexe nañ ba waaye yëpp jàll ay député PDS ñoo leen di woteel donte ñoom ña nga ci intercoalition opposition loolu mësuñoo bokk sax ci benn initiative opposition opposition ba mu defee motion de censure wate wu ñu ko ba ñu nee dañu bëgg a def haute cour de justice ci affaire u ministre yi nga xam ne tudd nañ leen ci euh, dix milliards u covid bi wate wu ñu ko waaye nag ba Benno Bokk Yaakaar moom indee seen décision ne dañuy Euh, foqati mandaawu Aminata Touré booba moom wote nañu kon lii nga xam ne la ñu def ña ngay voilà deal ak président Macky Sall yàgg na wane nañ ko sax ci assemblée nationale. bëgg nañ nag organiser benn liñ naan jalo toog waxtaan waaye waxtaan boobu yëpp pour am lu ñu jox opinion internationale maanaam sénégalais yi ak aussi. sunu partenaire bitim réew yi waaye liñ ci jublu mooy ñu effacer maanaam amnistier Karim Wade cent trente-huit milliards yi nga xam ne yoreel nañu ko te taxul looloo tax ñibbisiwut ba tey ñu dal di ko effacer waaye nag okk mi la loolu la président di joxe waaye li nga xam ne moom la ko PDS di jox mooy bu ñu toogee ne conseil constitutionnel daal ni ma ko waxee mooy décider ku war a nekk candidat bu conseil constitutionnel décider ne président moo war a nekk candidat kon ay la yéwén déedéet conseil constitutionnel ëppul maqaama sénégalais yi ñu doon conseil constitutionnel amul pour ëlbati décision yi nga xam ne sénégalais yi jël nañ ko ci ci constitution bu bees bi sénégalais yi comprendre nañ bu baax a baax a baax lan la constitution bi wax ndaxte président ci boppam da koo expliqué fu ne bu dem ñu ànd ci ak moom fii campagne naa fi ba tous les jours daanaka dama daan dox suba ba ngoon fii ci Grand Yoff moom it ku ne mu waxtaan ak yow dugg ci réew mi campagne wax kilifa diine yi ba ñun ñëpp ñu comprendre ne kenn mënatu la def ñaari mandat yu tegloo ci mim réew kon loolu dafa leer amul benn institution boo xam ne yaa ëpp manqaam peuple sénégalais bi ñu doon kon fi ñu toll dootul laam-laamee lu constitution wax ba conseil constitutionnel di ñu ci gindi déedéet loolu xam nañ ko waa conseil constitutionnel ñun ñi yëkkati woon suñu carte wate gënuñ ñoo xam lañ doon wate lu mu doon fi ñu toll jamono jii mooy ñu appliquer la constitution maanaam li constitution wax ñu def ko li constitution wax nag leer na président Macky Sall def na ñaari mandat kon jeex na na wut candidat bu ko neexee wala bu ko neexulee it mu set naka la bëgg a doxalee waaye moom mënta nekk candidat kon loolu mooy dialogue bi ak la nga xam ne moom laa ko waxoon man mii nga xam ne moom man lañu ñu singale ne maa tax maa tax déedéet booba mënuñoo accuser ki nga xam ne ñoo ngay co-organiser maanaam lii nga xam ne moom laa leen wax président Macky Sall daal nee na ay ca leen ñu waxtaan waaye ma ngay foqati ay mandat député ma ngay tëj kaso lu ëpp trois cent nangam jeune ma nga jël voilà opposant Ousmane Sonko jël justice ne ko acce fexe leen ba kii du bokk ndax moom la ma bëgg mooy mu tànnal boppam ñi nga xam ne moom lay jàkkaarloo ca élection 2024 yi nga xam ne moom ci boppam ñépp war nañoo mën a bokk ba mu des moom ndax constitution bi wax na lu leer fi ñu toll fii ci senegal nag dafa mel ni suñu démocratie bi dafay dellu ginnaaw ci ni nu ko gëj a gisee nag démocrate yi waruñu koo nangu waruñu koo nangu donte ñun dëkku jàmm la lañu Sénégal dëkku jàmm la Sénégal pays de jaloo def naa ba depuis temps président Senghor ñu ngi koy wax man mi jigéen doon yaay doon maam xam naa ne jàmm moo jig njaboot moo ñu jig loolu xam nañu ko waaye nag mënoo ne ay ca ñu dialogue ba noppi yootu sa karwaas voilà di emprisonné ay xale di tëj yéen ñi journaliste yi seen ñaata naataango ñoo ne ci kaso bi te pourtant président ne woon na ci ayam kenn du tëj journaliste di faagaagal ay opposant ba noppi nag ne ay caleen ñu waxtaan kon loolu li ñu ci jàpp mooy président Macky Sall du waxtaan lay président Macky Sall li ñu naan manœuvre politique politique lay def te nag ka ko ña ko ñooy jàppale ak ka ko ñooy jàppale mooy parti démocratique sénégalais bu ma ko doon misaal dama naan boo jëlee fukki su fukki baaraam seen benn baaraam lañ bàyyi ci opposition bi ndax intercoalition la ñu waaye juróom-ñeent ya ca des yëpp ña nga kër président Macky Sall ñoom ñoo ànd di nas lii nga xam ne euh, moom la ñu gis mooy deal politique te defe naa ne sénégalais yi kenn mënatu leen a nax ndax ñëpp comprendre nañ ne parti bu ñu sos yaa cinquante ans juróom fukki at ci ginnaaw voilà ab nit mënu leen a tere def li ñu war a def booba nag fale ñu trouvé li tubaab naan ay excuse di wut lay waaye lay wi moom tey dafa jeex gis nañu lu tax bokkuñu woon ci opposition gis nañu tey lu tax mënuñoo bokk ci F24 parce que lii président di nas ñoo koy nasa ndox moom mu ne leen danaa leen libéral Karim Wade danaa effacer 138 millions yi nga xam ne ñu ngi ko koy toppate ñëwul ci réew mi boobu ba tey ndax loola waaye nag voilà ni ma ko waxee loolu laa leen di jox okk mi rokkam waaye yéen nag da ngeen di fexe nag bu ñu toogee ngeen ne waaw ah na ñu bàyyi rek conseil constitutionnel mu désigner candidat yi conseil constitutionnel yoonam nekkatul ci mbir mi parce que ñun sénégalais yi réglé nañ ko ba pare loolu euh, dafa war a leer moo tax vraiment ñu ngi woo jeunes yi jeunesse bi ñu ngi woo soxna yi ñu ngi woo borom kër yi les hommes voilà ak ak at bu ñu mën a di woo kilifa yi kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa syndicaux yi association yi mais aussi di woo les femmes tout particulièrement ñu xam ne lii ñuy def sunu bopp lañ koy defal waaye aussi suñu doom yi lañu koy defal seen présent ak seen avenir kon ñoom it nanu takku mobiliser wu bañ a def ginnaaw ànd ak démocrate réew mi ànd ak plateforme des forces vives F24 bu ko defee suñu démocratie liñ fi jot a am muy les acquis démocratiques te bu ñu ko amuloon président Macky Sall kon du toog fa mu toog président Macky Sall nii muy def opposant yi bu ko doon def buñ ko ko defoon kon moom du doon candidat ndax jot nañ ko fee woo commissariat te dañ ko mujj bàyyi bu ñibbi moom ba ñuy foqati mandat wu Moustapha Cissé ak Mbaye Ndiaye la ma ca wax mu ngi fii ci seen vidéo yi ne woon na c'est dañu dañu violer laal waa loolu la santaane pour ñu def ma ko pour foqati sama man mandat ak yeneen yeneen ak yeneen ñun ñii ñëpp dañu àndoon ak moom ca place de l'obélisque Abla président Abla ramassé mënoon naa ramassé suñu teen yi te ci kaso bi ni ñu koy defee nii waaye dafa jàpp ne démocratie système la boo xam ne bii da ngay ñëw wax ñu wax sans compter nag yéen journalistes yi euh, gis ngeen fitna bi nga xam ne euh, ci ngeen nekk kon ñu ngi woo toutes les forces de la nation yi nga xam ne lim naa leen pour que ñu ànd euh, jàpp fexe ba suñu constitution bi ñu respecté ko ndax président Macky Sall mënul bokk kooku leer na ñu fexe aussi ba organiser élection yoo xam ne yu jaar yoon lay doon bu ko defee ñëpp mën a bokk loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko wax tey euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant